di saa حديثا نويت تاليفا asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq te di ko sàkk ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weeru koor bi ci naafile yi ci guddi gu nekk di ko sukkandikoo ci téereb Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke bu tudd Qurratul Ayni di dimbalikoo kàttanul sunu borom subhanahu wa taala njëkk loolu ñuy sàkk ci yéen ñëpp képp koo xam ne abonné ci seen youtube bi da aynul xayaat nga daal di gaaw daal di ci abonné ngir naafile yi bu ñu ko dugalee ngeen mën cee jot ci waxtu ak mbooleem yi am njëriñ ya am ci bëccëgu weeru koor wi ngeen mën cee jot naafile guddi juróomeel gi nag ñeenti rakka la rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak alam nashrah ba saar wi jeex ñetti yoon ak qul huwallahu ahad ba saar wi jeex ñetti yoon sëriñ bi nee na julli googu day ku ko def mel na ne ku aj junniy yoon umra junniy yoon dees na ko musal ci ak ñàkk dees na dolli wërsëgam faxaraf bu ci ne dees na ca bind ñaari malaayka yuy far ay ñaaw téefam di bind ay yiwam di ko yëkkatil ay daraja ba bis bay dellu si déwén te faatoo des na ko bindal tuyaabay ku dee ci te des na ko jéggal bàkkaaram yépp ta def na ko musal ci mettitu dee te faaw dana am ngërëmul yàlla te bu faatoo dees na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana mu di ca xéewu ba keroog bis pénc ba bu ko defee ñuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ñu suñu koor ñu sunuy jaam yàlla ñu sunuy ya julli ci barko Seexul Xadim jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bi muqayyadihi falahu alhamdu حمدا جميع الحامدين على وجوده وعلى